fi ak benn maman comme que nee nañ ñoom lépp ñoom la li ñu koy waxee déedéet chaque grand homme ay yaayun dame te ñoom ay batante la ñu maman nuyu nañ la bu baax asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leen sant gërëm yàlla yàggal taxawaay bi si ziar bu baax a baax a baax di la laajte est-ce que est-ce que ko yaa ngi yëg sa bopp ci financement xoolal bu dul financement yi sax dañu yëg suñu bopp président Macky Sall moo ñu defal lu ñu kenn defalul xolal dañu daan tok ba timis ñu nekk ci suuf yor suñuy lampe lampe jooni lay jar bu dolee su ndox me tour nga yaxu ëllëg nga def jëndi lampe tay xolal ke bi ni mu mel dañuy tok ba minuit di jaay lampe yaangi ni table yaangi ni yaang may dégg mariere gis nañ seen bop gis nañ suñu bop ndax jëni legi dañ koy def ci biir caisse di ko glacière di exporter jëni muy dem ta ma sofi am kon nak president Macky Sall lu mu ñu defal lu mu tuti tuti gis nañ ka te lepp mu jaare ko ci Abdoulaye Diop Sarr muy doomi Yoof suñu doom ñu di ko jappalé jappalé nañu ñu jappalé ka te lepp president Macky Sall kon président Macky Sall ñu ngi koy gërëm di ko sant Abdoulaye Bérési ak Jabel Mbegere Omar Gueye ministère de pêche ñu ngi koy sant di ko gërëm machine un million 500 lay jar nga joxe 250 mille a machine loolu Macky Sall moo ko fi def kenn ñu ko. te mu jaarale ko si loxo Omar Gueye Omar Gueye jaarale ko si loxo Laay Baaw Laay Bérési ak Jabel Mbegere ñu def ko si anin wu rafet ñu bokk ndey bokk baay dama ne xoolal président Macky Sall bu fi jógee kan moo fi toog. ban président la ñu gis ku fi toog ku dul président Macky Sall xoolal ne mu def si réew mi dama ne nañu dem liggéeyi nit day gore bu kenn jaay sa deret nañu dem liggéeyi bàyyi président Macky Sall mi ñuy ŋàcc lii bi jée na gañe na nañu dem liggéeyi ku nekk liggéeyi sa liggéey toog jàpp sa tranquille mu toog liggéeyi ñun loolu lañ bëgg a wasalaam. am na ñoo xamante ne dañ ne néew di doole lañu rek ñu daal di toog néew di doole yooyu moom mu ngi leen di gestu bu baax a baax yi ñu ngi leen di gestu waaye tamit loo néew néew doole nga jog rek liggey ta, yalla tax xamne ku liggey yalla dina la yalla yalla dina la may yalla mayul ñepp luddul jeex ñu bari amna lañu lañ dul jeex ñun ñi tok fi ñu ngi fay suñu soxla amuñu ñu denj waaye ñu ngi fay suñu soxla dañuy daan suñu doole ku jog liggey daan sa doole yalla may la nañu jog bayyi president ba sa kër tawé nga na président ba sa mir daano nga na président ba sa kër také nga na président nañu bayyi lool dem liggey yi président ba défé loolu kat du am la mu liggey réew mi ñu wax nañu jappalé président Macky Sall nañu ko jappalé nañu ko japp ñu lay waa Yoff ñu ngi si ñom tay ba ëlëk waaw ndax suñu président bi li ñu gëna neex ci mom mo fi andi jabar ju ñuul muy Marème fay Sall mu xam askanu dëkk bi di si dox di ñu defal xolal koor gu jot mu may ñu ñaari biye makka wala ñent biye makka ma am lepp si président Macky Sall la ah président Macky Sall nak bëgg na yow Marème fay Sall nga dégg man Dooy Njaay booba ba tay ma ngi rab sa jëkkër di ko wax lu baax fi ci defa ci bëgg na nga sétan télé bi dégg ka xol ma gis ma wax naa la que nag yow. ministre de la femme yow xam nga koy. ministre de la femme. dem social yow ñu ngi lay nuyu di la siyaar yow tamit yaa ngi joxoon financement ñu lay sant di la gërëm dañu bëgg na nga dolli di la ñaanal yàlla taxawaay bi yàlla na yàgg sa président bi yàlla na fi toog a toog ba doyal.